ñoom na su yor wàcc a ngi dóor ci suuf attention acca Bilal ah dañu leen nuyu bu baax di am contentement di jano ak yi yéen internet Leewtoo TV tey ñu ngi fii golf lañ nekk kan moo woote Salif Sakho ah fils de Double woote open press mu am combat bu rëy le 26 juin suñu papa Gaston la Don daal Sénégal daal koy taxawal ku war a bëreel ñu ne Moussa xale bi yaraax ba xale bi nga xam ne bu jógee yaraax ñëpp jóg Sathies la tey moo woote open press la woote tas xibaar la la waxal bilaa la ñuy dugg xool Sathies la nar le 26 waaye la nar tey jii ci tuus ci ambiance lan la nar dikk ay fan sam jour ji bilaa la ñuy dem rek xool Sathies lan la nar fii ci terrain bi ah kon nañu dem waa léegi dama ne ñu ngi lay nuyu di la siyaar tey sa open press Moussa Ndoye def démb fële ca Yaraax tey di sa open press fii ci Géejawaay nga génn say mbokk génn say am di jàmm génn avant tout ñu bàyyi la nga nuyu. waaw ñu ngi sant yàlla baax di ci lu cent bi sant suñu ñaari waajur avant tout di ñaanal ñu génn àdduna yàlla yërëm leen te xaar leen àjjana ñi tëdd hôpital aussi yàlla yëkkati leen ñu caab fete ginnaaw yàlla ñu caab fete kanam. di ñaan yàlla jàmm ci mim réew di ko ñaanal bépp jullit rawatina di nuyu kili kër kilifi diine yëpp lii di Touba lii di Tivaouane lii di Kaolack lii di Ndiassane Yoff Thiénaba bàyyiwuma fenn fépp foo xamante ni rek ay wàllu wi nga fa maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal fan yu gudd ak wér gu yaram rawatina di nuyu seen sama sëriñ si Abdou Karim di ko ñaanal fan yu gudd di ko ñaanal ay waajur yëpp nuyu sama papa ak sama yaay baax a baax rawatina waa golf ak sama waa écurie xamante ni booba léegi ñi nga ànd ak man xarit yoo xamante ni samay xarit personnel lañu jërëjëf Salif am na solo nga gëj a bëre 11 mars 2018. sa adversaire mujj laa bëri est ce que loolu manque repère du am si combat bi. waaw tolloo gu ma nag fu may manque bu ndaw laa boobu ba léegi mosuma euh, aw ma temps bi may toog di ko perdre chaque fois maa ngi suma bu ma kontaagul maa ngi dem géej maa ngi dem salle. jàmm loolu res moom maa ngi ci loxo yàlla xëy na yàlla moo bindee nii dama waroon toog ñetti at bëriwu ma waaw mais ñetti at yi moom bu ci boole benn at bi ndax benn at bi moom atum ba si bëri. sa adversaire mu mel ne am na lu leen yàgg boole da nga daan tonnerre jox ko mu daan tonnerre nga daan lagros jox ko mu daan lagros booy ñaa boole leen daan mu mel ni combat bi yàgg na kan moo doon daw combat bi si yéen. Malick Niang la. Malick Niang ah, ok ok. man ba may daan tonnerre boobu moom ñemewul bëre tonnerre avant tout parce que man tonnerre mooy bëri moom ci bu métti laa la nekk laa nekkoon parce que boobu tonnerre Papa Sow ak fi daanu te Papa Sow ba dégg nga bëri woon na ndax mu jeexee moment boobu koo xoon waxi tonnerre du ko jël. leneen li ci des du cadre kii kii laa bëre wala keneen ki moo moo tax ñu ñu boole xam nga. yaa nag xam nga ñu bàyyi ko ci loxo yàlla. maa ngi ñaan yàlla may ma ndam parce que yàggatul dara. mu ne moom xam na li lay daan parce que 1015 moo la gën a diis te ko. na ko loolu muy wax engagement am la na fexe wut pexe yi may daan moo ëpp solo ay 1015. fit bu koy daan yàlla dénk na moo ko. doole ji koy daan yàlla dénk na ma ko. neexoon na tey. ma njëkkoon ko def open press dama ko bëggoon poser question tax ma bu ñu jàkkaarloo wax du sigg xool ma. dalaa ragal bu toogee sama ginnaaw ragal. Moussa nee na ragalu la nee na ya waa Yaraax silaam nee ñoo ko jox kele bi mu lay daane lu ko supporter yi wax loolu lay def pour daane. kele goo antan ngay ngay mais Moussa Ndoye bu ko yarax see ngembee man ñemewu ma te yebu ma supporter Moussa ma yeb waaye bu ñu tëjee barrière yi di nga fa gis foofu mu sëgg naa la ko wax jëlo ko damay bañ lu ko daan te damay bañ li mu bëree dañam mu bëri koog man combat bi may diriger yow nu ma neex laa koy daane ñi gën a daaw ci làmb ñoo ëpp ah, ah, la neex xam nga boxe dafa am spécial. bëre dóor dafa am spécial. ni ku nekk ak la yàlla may de moom ngay bëre. moom ngay dóoree aussi. loolu may loolu may def noonu. daan naa ci fukki fukki ñaar xoolal treize mais moom ñaar defet la ci am moom ma dàq do ak non sama catu lii bu mu ñaan yàlla mu laal waaw ndax du ko fekkee. bu ko laalee. du ko fekkee. ndax du ko fekkee dara damay xale te du kàdda xale doomu gis nga nit bu fekkente ni danga nga opté lamb wala nga opté benn sport boo bëree wala nga ñàkkam combat war nga cee nekk tout le temps keroog ba ñuy signé combat bi su ñëwoon prix dañuy bëri Moussa Ndoye du sa du bëri. lan nga indil sa fans yi ndam kese laa na mënu ma leen sama yàlla combat bi ñu ko gën a bëgg. baal kii ñëw dina ñëw. ñu dégloo waay. bëggoon na dégloo waay rek Alioune Seye. daan fi Alioune Seye fi Eumeu Sène moo tax mu fuuy. bi mooy troisième fois bi. bii de waxatuma waaye ku ko neex di gée. balaa àgg ci waay mu ñibbi. ndax lan. samedi yàggatul yàlla na ko yàlla may jàmm bu ko dara jot ak képp koo xam bépp sa bépp sax sama mbokk jullit laa koy ñaanal mm. ndax bu jàmm amul kenn du ñëw waaye maa ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla na jàmmam yàgg ba ab bi sifle suñu biir ñu xool lan la yàlla di dogal suñu diggante maa ngi ñaan ko ay kilifa kese la am waaw parce ay kilifa fi ñoom si ñoo ngi fi ay kilifa lañu sama papa ñoom lees ñoom ñëpp a ngi fi waaye kon dëgg Balla Gaye te ñoom la daggee a ngi fi ak bu dul dara sax ma dama bëri kilifa doon ko sax Omar ak sama su may bëri dañ may gën a yokk pression ndax bu ma gisee du ma xam lu may def mais nii laa gën a libéré pour daal Moussa Ndoye ci jël bu gaaw day fekk ma pare moo dama am confiance mbër du préparé day pare man dama layu ngeen jamono defar jamono moom la nga xamee Sa Thiès aja Serigne Thiel Dakar ñu delloo ah waaye leen xel yàgg na taxaw na la Sa Thiès tey mu tey combat bi tey Ousmane Ndoye na xam na sama sarax <laughs> wut pexe yi may daan moo gën ay sarax yaa may dégg bu arbitre sifflé ay sarax ak lu ne di tax yaakaar doon ko préparé sa combat loolu sa doole ak sa fit ak sa fayda ak sa ngor du la ko loolu laa koy dénk ci moom moo gën ay sarax Moussa Ndoye li muy bëri dèjà xam naa ko avant tout du ma leen ko wax nag damay bañ jëli bu yomb ngeen naan waxoon na ma ko waxul na ko foofu rek laa mën ñu dem ci fair play ñu feesal dellu stade bi ba ñun ñu mën koo abal ay supporters mu supporter leen maa ngi ñaan yàlla may ma ndam aussi xam nga waaw question yi na ko dégg naa la buuxal ah, barrière ah, man sama problème mooy dama bëri ku njool bëri ku gàtt bëri man bëri ku sew bëri ku ne waaw adversaire yi ma bëre Moussa Ndoye bëre ma ak ñoom Moussa Ndoye ko jóge na ci defet jóge naa ci defet bu lamb jaaroo ñëw yàlla xam ne du ma bëre moom li may wax nii xam ngeen ci dara waxuma waxuma na carte de carte de ay ay ay neexal déedéet amoon na ci leneen lu ma waroon nekk mais loolu moo échec moo tax ñu jël ko dama amoon dama dégg benn boy di am nu mu wax dafa soob rek jël avance bi waaye dina ko daanu ba mu wóor ko fa laa waaw am benn problème mais moom lu mu wax ëpp moom li mu dèjà nii ni may wax ak yow nii suba ci guddi waa Gambie yaa ngi départ ak waa Casamance yaa may dégg kon yaakaar naa ni euh, bépp koo xamante ni yaa ngi géejawaay di Kër Massar Malika Yëmbal Gàddaay Buun Kër Massar bàyyiwuma fenn fenn fenn ba ci golf gii may yeewoo xam nga bàyyiwuma fenn ñëpp a ngi préparé combat bi rawatina waa Gambie ñoom ñëpp. ak ñeneen ñoo xamante ne mënu ma leen livre Casamance ñëpp a ngi fa ak Gàmbi xam nga Guinée Bissau Touba Tivaouane fépp dama fay jële ay nit andi ko fi ba ci yoof bi nga xamante ne nee na ay mbokkam lañ te ñu fay ñëw ñëw toog bëriwul supporter loolu moom méttiwul ndax xam nga xam nga bu bëriwul ak man wallaay la si stade bu ndaw bee lay bëri waaw na sant bu baax a baax maa tax bu xaalis waaw ba ya ba yàlla defee bay Sa Thiès ba léegi kenn mësul gu sama supporter di xeex tàlluñu ko man lañu ñu fay musa Ndoye la fay xeex bu ñu war a xeex ngeen naa ko xeex ba may leen ci ndam xanaa ko kontaan du tal yàq. wooteel mu jeex wooteel wooteel ñëw nañu. waaw boo xoolee gis nga tey ma maa ngi toll. Alioune Seye ku ne ne moom la dëggee dañoo bokk équipe guy gi nekku fi ak Galla Gaye nekku fi tey tanoor yëpp dañoo am combat kenn ku ci nekk fu mu toll nii sa bopp ma gënal du bañ naa la bu dee woote ñi ngi woote bu dee fajar gi ñi ngi ñi fu ñu war a daje bu dee liggéey ñi ngi war a liggéey di nuyu wàll doublage bu baax baax parce que tamit am na loo xamante ni du du du lañ ne fànn mais jamono ku ne am lenn loo xamante ni am na lu ma yokk woon astafurlah lu ma kontaan naa ci ñoom parce que bu dee appel la maa jot ci ñoom ñu fi nekkul di ko voyagé chaque jour ñu ngi may woo ba tellement yenn saa yi may wax naa ko ba dee danañ fees stade ba bu Moussa Ndoye bu ñëwee waxuma la waaye dama koy ragal moom mu koy fanaan fa moo gën ci moom ba ca maa ngi sant ñi nga xamante ni dañ may taxaw parce que ku ne xam na ne laamu dafa métti jàppale kese mooy tax ñu am li nga am ku ci mel ne Aliou Sall maire Guédiawaye wax dëgg yàlla pare na pour jënd bi yi pare na pour jox ñu oto pare na pour jox ñu kaar Malick Gakou c'est la même chose dafa maa woo ba këram sas ma ndam yëkkati xaalis bu bari jox ma na ma demal nga wut ndam aw ma fayam nee euh, na taal maa ngi koy sant bu baax xaalis bu bëri la jël yëkkati yónnee moom pour lan lépp rek ngi jox Moustapha Diop bu Louga ministre maa ngi koy sant bu baax ba combat bi taxawee ba léegi moom it ci loxoom euh, Lat Diop bu Lonaas aussi tamit maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm Jibi Lo maa ngi koy sant bu baax a baax Aminata Diatta bi euh, ministre de commerce bu euh, mi ngi Kër Massar sant naa ko gërëm naa ko Baba Ndiaye mbay Touré euh, Jibi Lo Andaw Papa Mama Moussa Fall sant naa leen baax parce que xam naa ni mis loolu sax mis nañ ko Ahmed ay dara Sané xam nga di gërëm ñëpp Mbaye ture maa ngi koy sant bu baax xam nga Xaadim Ndiaye Zidane mention sociale gis naa nag li ñu yëpp waaye lépp na sa daal incha allah sama booy yi nga xamante ne ñu ngi fanaan suñu egg suñu suñu bundu kër depuis ba combat bi taxawee ba léegi barki alxuraani karim joxuma ci kenn xaalis ñoom ñoo jël seen alal jël seen i carrière taxaw ko di ko gën a saako saako masaar bi 100 pour cent Kër Massar bi maa ngi leen di sant bu baax a baax doon moto ki nga xamante ni mooy waaw Kër Massar moom sant naa leen bu baax a baax ñëpp pare nañu combat bi pour feesal stade bi ñu bëri ko ci jàmm am ci baax beneen bi ci des nag mooy maa ngi sant ñëpp waa golf waaw maam Birame Diouf it aussi maa ngi koy gërëm baax a baax waaw di gërëm tam waa convoi bi waaw mboto yi mboto yeeg sereer yi dara desut jour combat bi ngeen am problème yaa ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que bu lii rek tur sama waa écrit yëpp leen sant bu baax a baax a baax ba ci kaw aale bi may tëggal maa ngi koy sant Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye mention spéciale bu combat bi taxawee yàlla ak moom la yaa may moo jëkkati kay téléphone am dem ci Gaston wax ak moom perte ñàkk ñaan jël combat bi tëgg ko ci diir bu gàtt maa ngi koy ñaanal yàlla mooy lu mu sumb yàlla ko daan maa ngi nuyu ki nga xamante ni Père Bada maa ngi ñaan yàlla may ko jàmm Simon Talla Meng maa ngi leen nuyu baax kii ak Waly Mbour aussi maa ngi koy gërëm baax a baax a baax euh, kii yéen nu tudd sax <laughs> Kor Ndiak Kor Ndiak ak Baye Ndiaye maa ngi leen sant ba ak Masata famille Ndiayeen yëpp ñun sóora bàyyiwuma kenn ak xalir dëgg yàlla sant naa ñëpp san ah Mbaye Touré waaw aussi maa ngi koy sant bu a Omar Omar Omar Boulanger Arif Omar Boulanger Omar Boulanger Omar Touré di nuyu sama seex yàlla yi aussi tamit Ousseynou Kassane Moussa Ndoye doo bëre doo xeex te di nga daanu bu soobee yàlla